kan moo fi mën a wane aspect positif bu Messi indi lu dul yàq doomu jàmbur ñu di leen biiral di leen ëmbal ak ay naar yu jóge euh, aux Émirats di ñëw di wut ay caga yu jigéen nga jël doomu jàmbur yi jox naar yi rendez-vous soi-disant waaw waxal ak kii moo gën nga téye sa téléphone bi rek di kii autorité la kële sax mu ngi wax ak kee ça c'est du racolage c'est du c'est une forme de proxénétisme c'est une forme d'encouragement n'est-ce pas à la prostitution de luxe waaw kon loolu loo koy doyee naan nañu jag-jagal nañ ko arrangé am nañu naan sax nañu retirer licence bi d'accord baax na waaye yamu ca nañu retirer licence bi tas comité d'organisation Miss Sénégal ndax buntu prostitution la ak buntu proxénétisme alors su ko defee nag loolu mooy itte Jamra te incha allah ci fan yu néew di ngeen ñu dégg dinañu wax ak ña nga xam ne commencé nañu fas seen fit di wax parce que ñëpp amoon nañu seen naqar am seen gàcc am seen kers denc ko waaye ndaka la kiy wax rek làmmi ñi daal di yeewu moo tax kii ñu ngi koy gërëm li mu fas fi fitam wax dañu ne woon kenn mënu ci dara parce que ci réseaux sociaux yi la procureur moomul YouTube ba a saisiré yoon yoon ñu que c'est la brigade spéciale de cybercriminalité moo koy toppatoo ñu saisir leen ñooñu rendre compte procureur procureur jàpp leen tëj leen 17 jours de prison ba ñu génnee ñu fëgg leen deux ans de prison ferme euh, euh, avec sursis pour le producteur et six mois pour les acteurs ana ñaari fóonantekat yooyu doon fóonante góor góor fii ci esplanade du euh, Grand Théâtre du day wax naa lii du mujj fenn ñu jàppaleen leen tëj leen weer dëkk bi dafa am yoon bu ku nekk toogee ne du mujj fenn Sénégal day màbb voilà kon nag ñun dinañu jël ba mu jeex tàkk tàkk li ñu yoon may parce que dafa doy ñu jàpp ay doomu jàmbur ñàkkum liggéey bi ci dëkk bi crise bu ci dëkk bi nga gis jigéen bu am jom am diine ne xaaral ma dem tenter sama sens nga boole kook ay naar yu wëyu ñu jox ko rendez bu hôtel yàq ko ëmbal ko loolu dafi jeex kon nag ñun maslaawuñu waaw nañu dindi licence bi nañ ko suspendre Jamra dana xeex pour ñu dissoudre comité d'organisation Miss Sénégal ndax dëkk bu tedd bii Bamba tëdd Maodo tëdd fi Baye Laye tëdd fi ku ko bëgg a toroxal yaay torox incha allah.